Sele ngi noonu waaye Toubacouta ngi noonu ndeysaan mais Bour Saloum mais Bour Saloum taxawal Bour Saloum taxawal man dama am doole am doole. loolu rek doy na wax. mais damaa naw loolu mbër bi mooy bëreel. que xam naa ne maa ko ëpp doole maa ko dàq ma maa ko dàq xeex. du mbër bu mag si man. si ponkal yi. ñan ñëpp. ñi nekk si kaw ñëpp bàyyuma kenn. nañ ma jox soq. bu génnee si combat bi. waaw si combat man dama am combat maa fi sa bat li moo lamb amul lu di si man barke Alxuraanu Karim maa ngi sant waa Kamma gépp waa zone Dior waa Saloum ñëpp maa leen di sant bàyyuma kenn maa ngi sant waa Foundiougne gars yi Boukhar bàyyuma kenn TV yëpp maa leen di sant barke Seydina Mohamed ma fils de Bally comme rek sport la rek Boukhar man damaa nekk xale nekk si lamb yàlla moo ma ko nattoo man damaa am doole mën a bëre maa ngi koy jox rendez-vous le 25 Kaolack loolu yàggul incha allah rabbi asifur maa ngi caatu yaayam caatu yaayam moo ngi si lamb rek lamb la fi nekkal maa si lamb xam nga di ñaan yàlla door roi des arènes di sant waa Kamb maa ngi xoog ñoom ma ma xaalis maam xaalis Sarr ñoom Alla Fall waa kër Moussa yëpp maa sant ñoom Pape Diouf monsieur le maire xam nga ñoom Malick Gueye ñoom Ousmane Gueye bàyyi ma kenn maa ngi sant Ousmane Gueye bu baax a sama grand. caatu yaayam day doon roi des arènes loolu laa dig samay mbokk. bi mooy sama 10 combats 10 victoire te ba léegi demaguma ardo kan moom ma yóbbu ardo ngir yàlla ah mbas Jamana